nga Qatar tëdd noonu lañ ko mën a waxee fii nii gis nañ ni seen i activité yu bëri dafa dafa wàññeeku Assane Massew naa yi day seen gis-gis a gàtt rek seen xam-xam néew hmm. moo tax ñu ne PDS ci tas la jëm hmm. mais PDS moom day insister fii ba politique di am chaque jour mi ngi fi PDS du mas a tas hmm. waaw bu fekkee ñoom dañoo bëgg lu tas nañ ko dem wuti mais PDS mënut tas ndax Abdoulaye Wade ngi fi ak njabootam mi ngi fi am na ñu formé formé ñu nekk si wàllum politique. mais ñoom seen leader nekku fi dañuy wax suñu leader. Karim la si dara ah, loolu di si dara. loolu du si dara sab leader fu mu mën a nekk Ousmane Sonko ngi nii nekkul Ziguinchor Ziguinchor ngay dox. mais si Sénégal la laa la wax. waaye Sénégal fépp a yem nit ki mu nekku fee teewut muy dox. PDS ñi ngi def seen réunion. Hmm. ñi ngi def seen seen wàllum politique ñi ngi kii xañ na dundoo bëri bëri jiwut rek. yënguñu bara bara ji kër kërëb defuñu ko dañuy daal dem si kër yi toog woote réunion di waxtaan ñu ngi def li ñu war a def man maa ngi leen di gis ñoom journal yi nag xam nga seen xam-xam gàttu tëñoo taayeen man maa ngi leen di gis waa PDS ngi def seen ay réunion ñi ngi ñi ngi jaay seen i carte li leen war a def lépp ña nga ca ñi ngi xaarandi président Abdoulaye Wade ñi ngi xaarandi président Karim Meïssa Wade buñ ñëwatit kenn fi teg it ni ñu def nii wulli yaa yeewi askan wi ba bañ mokk noonu la ñu continuer def ñoo wulli askan wi waa wallu nan lañ leen wulee. ay mbàkkeeg piki nag yooyu yëpp ñoo ko. raatale mais ñoom ñaar ñoo àndoon di. waaw ñoo ànd waaye bu doontoon ñoom duñ gañe fee kon ñoom waaye ñi journal yi wax loolu nañ ko bàyyi PDS mi ngi fa mu nekkoon waaw mi ngi fi mu nekkoon te élection 2024 yi da nga si xam dara incha allah. incha allah waaw bi alaaji. man de jàpp naa ni journal yooyu li ñu bind noonu moom. Mm-hmm. Ah, mbind la rek pour euh, préparer. Euh, xam naa dikku Karim Wade pour jéem a lancer mbir mi bu ko defee nga xamante ni bi nit ñi ne ah PDS ci lu mu ne après ñu daal di jéem lool parce que PDS tey jii la gën a nekk maanaam PDS bi ñu defee seen yëfi yi nandite ginnaaw bi ñu dee ba pare. Mm-hmm. wallu wallu leen. donc euh, yu kii daal di ne wallu lañ tudd yeewi yeewi leen génne leen ci pax mi. Mm. parce que tey bu fekkonte ne bi yeewi demaloon na boppam. Euh, bañoon a créer coalition ay walloog yooyu euh, yeewi kon je pense que ni doon na am lu ëpp sax li nga xamante ne bi moom la am ci ay député mm. doon na ko am kon PDS doon na gën a loolu na sax mais respecté boo xam ne respecté nañ ko parti bi bokk na ci li nga xamante ni bii tey moo tax ñu existé mais gis nga leen ba demee assemblée nationale it taxawee nañ ñeneen noo xam ne bi yeneen jafe-jafe commencé nañ ko indi seen diggante ñoom ak waa yeewi te loolu nag warul woon a bett ñu bari ci ni nga xamante ne bi noonu la yëf yi tëddee parce que ñoom bañ duggee assemblée rek lañ ne la yëf yi jeex na léegi changer comportement changer doxalin lii ñuy wax nag man defe naa ni bon lenn la ci ñu annoncé euh, retour Karim parce que boo déggee nee nañ way message yi doxatut kii lii wala laag laag lële mm-hmm. loolu ginnaaw Karim a ngi euh, xalifa actuellement mu ngi commencé di doxantu di loolu te moom ak kadi xalifa ñoo bokk daanaka même atte te gars yi ñu ngi ci pour Karim dellusiwaat donc lii genre signal la est-ce dellusi boobu dina yomb parce que nee nañu ko dañ ko bëgg am amnistie moom nag dafa lànk loolu. lànkul dara loolu waxin la rek mm-hmm. wax la ju jëm ci kaw rek mais amul dara lu muy bañ am amnistie boobu dañ koy jël parce que xam ne diggante bi procès xaju fi bu ñu fi nee dañuy def procès am kon donc du bokk ci élection yi di ñëw. amnistie boobu da koy jël mais il faut mu bañ bañ lu bu ko defee campagne <laughs> waaw loolu waxi nandite la rek politiciens yi xam ci tappale lañ day <laughs> <laughs> dañuy foto ah loolu mooy loolu mooy li nga xamante mooy xam ne boo xoolee timing bi rek xam ne baaxul te nem nee nañ candidat lay nekk kon donc amnistie boobu da koy jël da koy jël mais nag il faut duñ ñooy amnistie rek ñun mu mu sotti ci il faut mu bañ bañ lu jéem kii bañ boo xam ne bi bañut dara mm. waaw day leer na leen day accepté donc dina ñëw continuer li nga xamante ni bi mooy kiyam parce que tamit aussi day xam nga politicien dafay am lu muy bañ quoi mm. tey bu ñu la waxee ne dañ lay amnistie rek mën nga génn aussi tamit ci sa campagne gars naan bon diw sàcc la ak mm. affaire yooyu yëpp nag la fait que nga ne bañ naa ko procès bi laa bëgg ñu ubbi ko te leer na ni procès bi kenn du ko fi ubbi mm. loolu genre kii la rek fi mu toll nii daa man jàpp naa ni même journal bi bind sax euh, dafa bind rek ngir boo defu ndànk dañ ne ko bindal mu ngir mu bind ngir préparer li nga xam ne mooy kii bi parce que lu doonut actualité nga xëy bëgg koo def actualité mm. nii rek nga ko mën a defee mm-hmm. parce que bu dutoon loolu duñ ci wax tey mm-hmm. dañ doon jéggi mbirum PDS léegi nag le fait que ñu waxaat ci mbirum PDS mm. naan waaw fu Karim toll ak nu yëf yi kiiwee rek de de fait mbir mi tegaat nañ ko ci taabal ji. Ah, mais mais est-ce bu ñëwee dina peser tamit parce que ku toog depuis ñu am. Euh, bàyyi ñoom xam nga ñoom politiciens yi defe nañ ni fi mu toll nii euh, defe nañ ni lañ daan saf ña ngi koy saf ba tey te xamuñ ni. mbir mi daqaar ju sàlli lañ. <laughs> nit ñi pare nañ ci yenn yu bari. Uh-huh. loolu nag ñoom xamaguñ ko xam nga c'est que problème Sénégal yëpp loolu la. Mm-hmm. problème réew mi. dafa am fu population bi toll. te hmm. politiciens yi yegsee wuñ fa. population bi génn nañ ci yenn yu baree baree bari mais politiciens yi ba léegi dañoo takk maanaam dañoo am en retard dañoo tardé. en retard par rapport ak askan wi. Hmm. askan wi dañu am yeneen gis-gis yeneen xalaat ñoom nag ñu nekk ci xalaat yooyu nga xam ne moom lañ daan doxal ay jamono defe ne ba léegi yooyu mi ngi dox te yooyu doxatul. Hmm. yooyu doxatul de. doxatul waaw.